abonné leen ci chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen di ko mën a jot ca tàng-tàng ba tàng-tàng ba assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di balo balu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa mu boole ñu bal daa mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane loo xam ne dundug doomu aadama su nekkoon ab tukki doy na bi yóbbal su nekkoon itam ab xare doy na ngànnaay te mooy nëbbu mer wala wann mer arab yi di ko tuddee kazmul ghayz lu ama am solo la ndax dunduk doomu aadama dafa tërë di tey mu neex ëllëg mu naqadi tey ñu wax ko wala ñu def ko lu koy bégloo lool di ko kontaanloo ëllëg itam mën nañ koo wax wala ñu def ko loo xam ne ab dënnam mën na cee tànge ay sëdditam itam jóg li ñuy wax énervé ba su ko yàlla dimbulewul mën naa def luñ koy xeebe ba tax na bokk na ci liy dimbale doomu aadama mu am force de résilience wala force psychologique bu koy may su ko mer ganee mu xam nu mu koy gérer ba ànd ak dal calme sérénité ak maîtrise de soi lu ama am solo la loolu nag yàlla subhaanahu wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak borom xam-xam yu mag yi jàngal nañ ci loo xam ne doy na bi yóbbal doy na ngànnaay mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala dafa tagg ñiy wann mer digleen njéggalam ak aljannaam te mooy fi mu waxee ne wasaari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lilmuttaqin alladina yunfiquuna fi lsarraai waldarra walkaazimina algayza walcaafina an innaas wallahu yuhibu almuxsinin yàlla subhaanahu wa taala nee na sama aljanna day mayewul saraxewul leblewul waaye dama koy jaay te ñi am njëg gi mooy ñi ragal yàlla te ñi ragal yàlla mooy ñi dajale ñetti jikko ñetti jikko yi mooy am joxe mer dese sago ñu tooñ la ngay jéggale waaw ndax seytaane lim ñuy yàqale mooy am téye mer xataraayu tooñ fayu yàlla ne du noonu de am joxe li la yàlla may dee ci tabe di ci dimbule ñi ci wërsëg wi yàlla dénk ñaareel bi boo meree na nga ànd ak dal ànd ak sago ba ki jàkkaarloog yow du jànge ci yow ne danga mer waaye buñ la tooñee del jéggale su boobaa di nga bokk ci ñiy rafetal te ñiy rafetal ñooñu la yàlla bëgg mbokk yi dañuy wax ne alxadabu riixun tutfiu siraajal aqla gis nga xel dafa am làmp bu koy bu koy leeral bu koy éclairer ñu koy tuddee làmpub sago mer nag mooy ngelaw ngelaw li koy fay waaw moo tax bu soytaane bëggee jaaree ci ngelawul mer bëgg a fay sa làmpub sago fulla ji soytaane am ba ne dina fay sa làmpub sago nanga am fulla ju ko ëpp ba xeex ak moom ba du fay làmp bi yàlla dafa waxaat ne inna alladina taqaw ida massahum taifum min alcheytaani tadakkaru fa ida hum mubsiruun nee nañu ragal yàlla bu leen cheytaane naree yablu jaare ko ci mer dañuy fàttaliku danger yi nekk ci mer waaw danger yi ci nekk conséquences yi muy jural doomu adama bi fii ci àdduna ak yëm koy jural àllaaxira boo defee ñu daal di ànd ak raison ànd ak maîtrise de soi ànd ak dal ànd sago waaw loolu lu jara bàyyi xel la ndeysaan sallallahu alayhi wa ci benn xadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci ibnu umar radiyallahu anhuma mu maa tajarraa abdun juratan afdala inda allahi azza wa jalla min jurati gayzin yakzimuha btigaa wajhi llahi taala ahmad moo ko génne sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mbooleem lu nit di guux di ko jàllale guux kafe wala ataaya wala ndox di ko jàllale guux mer jàllale ko moo gënal yàlla doomu aadama bi mbooleem doomu aadama bi mbooleem lu muy guux di ko jàllale mu guux meram jàllale ko ba du def luñ koy xeebe wala mu koy wax lool de moo gënal yàlla subhaanahu wa taala yàlla digewaat ci loo xam ne ñu bari sopp nañ ko rawatina góor ñi te mooy soxna yi aljanna yi xuurul ayni yi ku la dàq nëbbu mer moo lay ëppule ci soxna yi aljanna yi dañu jële ci sahlu ibnu muaad ibnu anas al juhani mu jële ci baayam mu jële ci yonent bi salaam mu ne man kazama ghayzan wa huwa yastatiicu an yunaffidahu dacaahu allahu yowma alqiyaamati cala ru'uusi alxalaa'iq xatta yuxayyirahu fi ayi lxuuri shaa kooku Ahmad moo ko génne ak Abu Daawud ak Tirmidi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne dañ koo tooñ mu mën a fayyu waaye mu xalaat yàlla rek jéggale te yàlla tax te pourtant mënoon naa fayyu de bu yowmal qiyaamee yàlla dina yàlla dina ko woo ci kanamu mbindeef yépp mu décorer ko te ni mu koy décorer mooy da koy woo ba ñépp di ko gis mu teg ay xuurul ayni soxna yu jekk te taaru ne ko tànnal ci soxna yi lu la neex lim bu la neex ak ñu la neex nga jël maa la ko décorer ndax lan dañ la daan tooñ nga mën a fayu ba noppi jéggale nëbbu sa mer te yàlla tax waaw moo tax ndeke li ñu tuddee xeex noon yi baaxul dangay xeex noonoo maanaam xel mu ñaaw mi soytaane di def ci yow di la gëmloo ne kii dalaa bañ wala dalaa xeeb fexeel ba xel mu ñaaw moomu nga xeex ak moom ndax kiñ naan la sab noon la xeexal ak moom bàyyi ko mere ko da ngeen a waroon a pour indi ci àdduna développement intégré développement durable waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee dëgg du mooy kii xeex ak noonam waaye mooy kii xeex ak tàngaayu mer moo tax dañuy jële ci abi hurayra radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi laysa shadidu bi suraa innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda al ghadab muttafaqun alayhi nee champion dëgg-dëgg nekkul ci ngay entraîner ba say biceps génn wala ngay def ay arts martiaux ko dóor mu daanu wala koo xeexal gañe ko loolu du champion ci yàlla xëy na ci nit ñi xamul nag mën nañ laa jàppe champion jàppe ne yow héros nga waaye champion ca yàlla dëgg-dëgg héros ca yàlla dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne su ko mer day am dal ànd ak sago ànd ak maîtrise de soi ba du def wala muy wax luñ koy luñ koy xeebe loolu lu jarab bàyyi xel la waaw wan na mer ak am solo moo tax ñu ne boo meree nanga nga noppi bul wax dañuy jële ci ibnu abbas mu ne yonent bi salaam nee na ida gadiba ahadukum fal yaskut qaalaha thalatha rawahu ahmad yonent bi salaam nee na ku bañ sa mer di lay yóbbe ci looy réccu boo meree bul wax kon bokk na ci ni ñuy gérer mer boo meree nanga noppi waaye soo waxee rek mën ngaa wax loo xam ne soo giifee danga naan xanaa dumaa wax lii kay waaw loolu lu jar a bàyyi xel la neewoon naa leen mer ak mar ñooyam bu nit ki maree lan moo aay ci mar ndox nanaan ndox rek maram daal di dañ waaye bu meree itam ndox ndax mer safara la kon na xool lu giifal meer bi muy bu mu wax bu mu jëf wax nañ la boo meree bu la fekkee nga taxaw toogal bu la fekkee nga toog tëddal ah dañuy bañ ngay def looy réccu waaw ndeysaan moo tax ku mel ne muarriq al-ajli ne maa takallamtu fi lgadabi bi kalimatin nadimtu alayha fi rida maa takallamtu fi lgadabi bi kalimatin nadimtu alayha fi rida mu ne man daal dama seetlu ne bu ma meree mboolem li may wax ci jamono ji ma mere su ma demee ba giif dama koy réccu damay mel ne ku meree sama bopp ne waaye man nu ma mën a waxee lii fekk bu noppi woon rek mën naa mu mucc abi xabib ne innama gadabi fi nacli fa ida samictu ma akrahu axadtuhuma wa mashayt yazid ibnu ibnu abi xabib moo ko wax yazid ibnu abi xabib mu ne innama gadabi fi nacli fa ida samictu ma akrahu axadtuhuma wa mashaytu mu ne sama mer daal dama koy jël rek ma roof ko ci sama talon wu dàll sama mer ci sama talon dàll wii laa koy roof saa yuñ ma waxee wala ñu def ma loo xam ne man na ma merloo rek au lieu que ma nekk fay xuloo wala may xeex damay fexe ba effacé wu ba fañ ma waxee lu may merloo ma sori foofu dem faneen moo tax mu ne sama mer dama ko def ci sama talon wu dàll buñ ma waxee wala ñu def ma lu ma mën a merloo ma yóotu samay dàll rek sol génn dox ba sori boo doxee ba sori rek mën ngaa amaat soulagement mën nga soulagé wu mën nga épanouir wu ba boo ñëwaatee sa mer day giif ndeysaan am na sama benn wóolëre boo xam ne bi mu génnee àdduna loolu lañ ko doon seedeel ne moom day kër gii mu nekk sax am fi ay soxnaam ak i doomam bëgg jàmm taxoon na bu ko soxna yi wala doom yi wala kenn ci njaboot gi defee lu ko mën a merloo day sol mbubbam rek yootu ay dàllam teg daal di sol génn dem dem fu sori ba soulagé wu ba xelam dal mu ñëwaat du xuloo kenn du xeex ak kenn moo tax livre professeur euh, docteur Massamba Gueye boobu am na solo de bi mu tuddee viatique pour se muscler la tête waaw dafa lay jàngal nooy fexe ba boo amee mer maanaam comment transformer la colère en énergie positive waaw boo amee mer au lieu que nga wax wala nga def lu lay xeebe nga fexe ba mer boobu sax nga rafet ci lu ama am solo la parce que ki lay merloo sa organisation émotionnelle moom la bëgg a détruire waaye fulla jum am ba bëgg a détruire sa organisation émotionnelle yow na nga am fulla ju ni toll ba am sa sago am sa retenue sa raison garder sa dal lu am am solo la xam naa ne livre docteur Massamba Gueye boobu viatique pour se musculer la tête ah ku am dina baax lool ndeysaan Abdullah ibnu Umar ne ida sami'ta al kalimata tudhika fatati laha rasaka xatta tataxattook nee na buñ la waxee baat bu la naqadi bu la mën a merloo nee na na nga sëgg bàyyi mu jàll waaw defe naa sëriñ tuubaa jàngale ne ko ci nahju qadaa al xaaj wa laqad amurru ala laimi yasubbuni wa aifu thumma aqulu laa yaaniini sëriñ tuubaa moo ñu ko jottali defe naa ne am na waxkat bu ko waxoon ci boroom xam-xam yi ne ku ma réeree bu ma waxee loo xam ne leer na ma ne lii mu may wax daf ma mere wala mu contre ma waaye lii du sama jikko damay sëgg rek ne ah xam naa kaneen lay wax rek loolu lu jara bàyyi xel la donc euh, loolu mooy gérer mer ak di ñaan bu lay wax lu lay merloo ngay ñaan di dellu ci yàlla di xalaat nag yonente yi fi jaaroon gën la fuuf ak wàllu yu yi ak nitu yàlla yi ak soxaaba yi yàlla da leen doon nattu yu nattoo lu métti léeg-léeg seen société réere leen di leen dénigrer di leen jabolisé di leen wax loo xam ne du seen jikko léeg-léeg sax da nga gis yonente boo xam ne xoolal yonente yàlla noox doomam kanaan moo ko contre woon soxnaam contre ko ah doomam naan ko saawi ilaa jabalin yaasimuni minal ma bu ko defee yow mi nga xam ne doonagoo yonente man naa am doonagoo wàll yu da ngay jéem rek boo xalaatee ci yonent yooyu ak wàll yu nga xam ne ñoo muccul ci doomu aadama ah su boobaa dina la muñ loo lu bëree bëree bari mbokk yi kon dañuy taxawandi fii di ñaax ñëpp ñu abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di aimé ndax fi la njëriñ yi di gën yaatoo jàngeen jëfoo salaam